Tchou ñu gis ni nga jur ay seex yu am 10 ans ñoo xam ne mënuñu seen bopp dara nga tee di leen yor ñu laaj yow nan nga dëkkeek ak ñoom. waaw xanaa julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant leen bu baax di leen gërëm ndax nit ñëw dong seet si la yàlla dong moo am payam yàlla na leen yàlla fay waaw xale yi ni ma nekkee ñoom xanaa di di dolee rek xam ne yàlla sunu borom ma andi dogalam ci sama kaw teg ma ko. xam ne nattu sunu borom bu ko yàlla andi danga koy gëm waaw danga koy gëm waaw xam ne dogal sunu boroom la rekk saa yu ma xëyee maa ngi leen di toppatoo di leen may ñu lekk lépp lu ma mën ci ñoom maa ngi koy jéem ndax kenn mën yàlla rek moom mën waaw di leen ñaanal yàlla sunu borom tamoot yàlla tegil leen nattu bi mu leen teg ndax bu leen ko tegee daanaka man la ko teg ndax ñoom mënuñu dara lépp yaa leen koy defar mënuñu seen bopp dara mënuñu dara lépp yaa leen koy defar. ñoom da nga koy judduwaale waaw ñoom bi ñu juddoo bi ñu nekkee lii amuñu woon benn problème après feebar bi ñu am at muy feeñ ci seen yaram di feeñ di feeñ bu mu yàgg sama yaay ne ma ñii dañ leen a war a yóbbu faan ma dem ci suñu hôpital bi fale suñu dëkk kooku xool leen bindal leen kayit ni ma yóbbu leen faan ma ñëw faan entré rek ñoom foofu kii nelaw na foofu ñetti fan xoolul yeewul waaw. man jékki-jékki rek nga remarqué ci ñoom man dafa jékki-jékki maanaam ñoom ñuy jeex rek. di jeex rek amuñu yaram daal di gën a ndaw mais ñuy dellu ginnaaw daal. juddoo amuñu woon benn problème boo leen gisee da nga naan sax amuñu feebar waaw amuñu woon benn problème kenn xamul woon ne am na lu leen daal après bi ñu demee ba mu yàgg ñu am at tëdd tëdd nañu ñeenti at tëdd rek may sang teral rek amu woon sa kenn ku ma si jàppale waaye fan laa leen daan yóbbu traité naa leen fa daanaka ëpp na at. waaw léegi waa Fann lan la wax bi nga demee Fann. bi ma demee ñoom dañ cee jàpp waaw dañ cee jàpp wax dëgg utaloon nañ leen kayit boo xamante ni dangay faju doo fay dara waaye ordonnance yi moom man maa ko doon taqale waaw ak képp koo xamante ne am na ndimbal xam ma rek jàppale ma ci ordonnance yi waaw man maa ko doon taqale rek waaye ñoom wax dëgg yi ci des yëpp ñoom ñoo dañ cee jàppoon moom ndax man néew di doole laa fee laa nekk ak ñoom suñu dëkk ñoom seen feebar moo ma andi fii léegi ñoom bi ñu demee ba nga xam ne ni xale yi weraguñu ñu ne ma dangay ut foo mën a nekk ak ñoom di leen traité waaw léegi est-ce que yaa yi nii. waaw instant yi nii am na fu ma leen doon yóbbu ñu leen di massage di jubanti seen tànk yi léegi nag foofu affaire feebar bi moo taxoon ñu éliminer ndaje xale yeeg yëpp ndax feebar bi waaw waaye avant feebar bi dama leen daan yóbbu hôpital bu ñu des bu ma yeggee daal seen yaram yóbbu leen hôpital waaw léegi nag seen déplacement moo xaw a métti léegi su ma leen yóbbu hôpital garab bi ñu leen mujjee bindaal damay jël ordonnance boobu téye ko su ma gisee dama sentir ko ci seen yaram. su ma furaatoo dara ma dem pharmacie jëndal leen ko jox leen ñu naan noonu laa mujjee def ak ñoom. da ngay liggéey wala. man liggéeyu ma dara su ma xëyee damay ma jaal ak ñoom lu ma am ma dimbale ko ci ñoom euh, utal leen lu ñu lekk ak lu ñu naan toppatoo leen ci daal. amoo kenn ku la mun a ja koo xam ne jàppale na la ci lu muy lekk ak ci ay dundam quoi seen dund. aw ma ko moom yàlla naa yàlla rek ma ne ko yàlla rek aw ma kenn ku ma ci jàppale moom. yàlla rek su ma xëyee daal damay dem ma jaal ak ñoom lu ma am ma ñëw defal leen li ñu bëgg a lekk man defal leen ñu lekk waaye aw ma ku ma ci dimbale de yàlla rek laa si yaakaar ak ñi may seetaan ñi nga xamante ñu may déglu maa ngi leen di ñaan képp koo xam ne mën na maa dimbali ci sama doom yi ñu dox ñu mën a wax ñu mën a tibal seen bopp lekk sàkku naa ci ñaan ku ma mën a dimbali ku ma mën a jàppale ci ñoom parce que vidéo bi nga ma ñëw andi pour tegal ma ko amoon naa jaaxle woon naa lool sonoon naa aw ma woon fu ma jaar mais yàlla moo la xëcc andi la ba si ñoom te yàlla moo lay fay te képp koo xamante ne mu ngi leen di déglu comme li ma wax nii rek ñu seen dox seen warul lekk maanaam métti na torop daal waaye sant naa yàlla bu baax ndax yàlla moo ko andi sama kaw teg ko si sama kaw nangu naa ne dogalu suñu borom la waaw. des fois tamit doo dem ci kenn koo xam ne mun na leen mun na leen a waaw kenn ku la dimbali. amoo kenn ku ma ci jàppale yàlla rek laa ci yaakaar ak fu ma xëyee toog ak ñoom fen lu ma am ma ñëw rek defal leen waaye aw ma ko ci di wax dëgg yàlla. ñoom ñaa ngi gis ñu am nañ ah, fukki at léegi dañ lay laaj ba xëy di ànd ak ñoom nan nga leen gérer ak nan nga leen téye ba yóbbu leen. waaw day metti torop day metti sama su ma xëyee sama rakk bi nekk ak man moo ma ciy jàppale waaye moom des fois dafiy nekk ay semaines yenn saa yi mu dem bàyyi ma fi mais su ma xëyee nii damay ut kalandoo ma fay ko 1000 francs mu yóbbu ma indiwaat ma. bu fekkee aw ma kalaandoo bu ma jëlee taxi tamoon to ay 1500 lañ la ci fayeeku ndax ñoom duñu la miin ma dem ñëw mënuma boot dox lu toloog lu yàgg mënuma ko su ma ñëwee sama yaram bi mooy métti waaw waaye sant naa yàlla bu baax waaw. léegi ñu gisoon ni ñoom ñaar dañoo amoon rakk seen rakk wàññeeku seen waa kër moom moom it dafa feebaroon wala moom dara dalu ko. comme ñoom la meloon rek dafa feebaroon comme ñoom ndax fii laa leen yoroon ñoom ñett doo leen yóbbu léegi nag sama benn doom bu góor laa daan àndal léegi bi may ànd ak sama doom bu góor sama yaay ne ma xele bi danga koy yàqal jàngam ndax am na at di man léegi sama yaay ne ma ma xele bu jigéen bi ma yore ko daal di jël xele bu jigéen bi yore ko bi ko yoree kooku dem jàngi xele bu góor da tardel naa ko sax am na at demul jàngi demul fen di toppatoo xale yi di topp di ma jàppale ci xale yi waaw loolu noonu la demee ma bàyyi xale bi sama yaay ma dem foofu fekk xale bi feebar ma àndi ko fii bi ma ko fi àndee motul une semaine xale bi fii la wàññeekoo jotuma ko yóbbu hôpital sax dama doon lijjanti kayit rek pour yóbbu ko far yàlla dogal mu wàññeeku fii waaw. baax. léegi yow fi nga dëkk nii euh, da nga fay luye wala di wala di wala nu fa demee. waaw dama fay luye moom. da ngay fay mois. waaw chaque weer bu dee damay fay luyaas hmm. waaw. loolu metti na rek soxna si. waaw metti na waaye sant yàlla rek. sant yàlla lu ñëw rek nga xam ne dogal suñu borom la. man daal yàlla rek laa yaakaar ak ñi may déglu ñëpp maa ngi leen di sant te moo di leen ñaan ndimbal waaw wax dëgg sant naa sant naa yàlla daal bu baax sant naa yàlla ndax yàlla bu andee dogalam danga koy sant te doole mu ñaan sama xëyee damay ñaan yàlla may ma xol ma mun a muñee rek loolu lay ñaan waaw man moom maa ngi fii laa dëkk di fay lu yaas waaye wax dëgg xale yi bari woon bari nañu bruit bari nañu coow waaye kenn mosu na ñëw ne ma xale yi nangam wax dëgg maire bi supporté na ma jàppale na ma. xam naa ne mën naa jàppale ja jaboot waaw. mais comme bari biir ba guddi gi ñoom nañ nelaw. des fois dañuy jooy. Hmm? des fois dañuy jooy des fois ñu nelaw. waaw nga leen di boot kenn ki ba mu nelaw nga wàcce ko boot ki ci des. noonu la gis nga sama rak bi ma nekkal sax ay fan la fi am rek dem moom itam bu guddee yenn saa yi dañ ma ci jàppale. day jël kenn ki teel ma waaw. moom tamit jàmbaar la ci torop wax dëgg des fois damay wàcc feebar duma leen mënal dara. yenn saa yi moo leen di sang te xam nga ñoom seen sang ne kii yombul waaw wax dëgg moom jàmbaal la ci seen yére yi tamit wax dëgg xaaruma si dara man xam nga ñii mënuma ma leen a yor sax fóot mënoo leen a yor def dara waaw lépp wax dëgg affaire fóot beeg yëpp ñoom moom moo ko jël moom ñoo ma ciy jàppale bu baax wax dëgg sant naa ko bu baax moom tamit maire bi tamit sant naa ko borom kër gi ndax ku baax la ku mun a nekk ak jaboot la fii suuf laa nekkoon bi may yéegal boobu nekkuma fi woon te na maa woo ne ma ah damay defar sama fii ñëwal ñëwal ñëwal nga génn waaye defu ko ma nekk suñu dëkk am naa fa ay weer yu bari ba ma ñëwee am na ñaari weer dal ma koo may ne ma jëlal garaawul wax dëgg man sant naa ko bu baax sant naa ko gërëm naa ko bu baax ak jëkkëram yépp wax dëgg jàppale nañ ma moom mën nañoo nekk ak jaboot te man tamit li may ci dolliwaat képp koo xam ne mën na maa jàppale ci foo xamante ne moo nekk ak sama doom yi toot maa ngi koy ñaan waaw ndax ñii fii nekk fii wéyul waaw ndax kenn ku ne war ngaa ñaan yàlla foo xamante ne di nga fa mën nekk ak sa njaboot surtout ñii ñi leen mën a supporter bariwul ñi leen mën a supporter bariwul waaye sant naa yàlla bu baax sant naa yàlla. xanaa di leen ñaanal jàmm ak seen wér yaram rek. ñoo ci mën a jàpp tey mën nga cee jàpp yàlla rek tax nga jàppale ma yàlla tax ndax metti na torop torop waaye sant naa yàlla ndax yàlla day xool lu metti mu teg ko doomu aadama. kon nag nag gëm ne yàlla moo dogal lii ci moom man dem naa ne yàlla suñu borom noo ko dogal te saa yu ko yàlla dogal bi ab bi jeexee incha allah gata ñaan yaaka am naa yaakaar ne dina jeex waaw waaw sa naa leen bu baax ko ñi may déglu ñëpp ku ma xam ne am na ci loo ma ci mën a jàppale nga jàppale ma ci bu baax wax seen waru lekk lépp maa koy lijjanti lépp man maa koy lijjanti lépp waru lekk beeg yëpp waaw lépp sama loxo la nekk wax dëgg amul kenn ku ma ci jàppale moom yàlla daal laa ci yaakaar wax dëgg yàlla rek laa ci yaakaar ak képp ku ma xam ne mu may déglu te am loo ma ci mën a jàppale rek nga jàppale ma te yàlla tax. soxna ci léegi ñoom an seen papa. ñoom seen papa wax dëgg duma la fen duma la wax loo xamante ne nekkut man daal ci war man maa ngi koy jéemal yàlla waaw maa ngi yàlla. seen jàpp ci boobu léegi. Ah, moom daal bu njëkk te commencement ba daal na ci jàpp mais léegi daal wax dëgg su ma waxee dégg te yàlla tax rek. xaw ma sax ci lu mu nekk. gën nga koo gis mu jur xale yi benn dem bàyyi leen nga gëj leen a gis. ah man daal xaw ma ci lu mu nekk daal. ñu gis soxna si bi nga ko laajam wax ci yow ay kàddu yu rafet ne yaa dëkk ak moom fii di ko jàppale ci lépp léegi ñu leen laaj yow nan nan nga ko gisee mu yor seexam yi fii nii yow nan noo gisee loolu mun cee wax. Ah, ni ma gisee mu yor seexam de xam naa ne ku jar dimmali dimbali la tamit ku jar jàppale la vraiment waaw ay temps am na ñu fi daan ñëw di ko jàppale waaye. des na daal jàppale bi des na waaw. léegi yow comme yaa dëkk ak moom ñooy laaj lan ngay wax waa autorité yi ko mën a jàpp ah, li may wax autorité yi mooy ñu jàppale ko rek nañ ko dimbali rek te yàlla rek tax ndax jigéen la te néew na doole nekkul ak boroom këram moo ay doomam a nekk muy daan dasta si di daanoo ñoom di jóg ay ordonnance ak yëpp fu ne fu mu xam fu ñuy def ndimbal rek dem na fa waaw ñu ngi koy dimbali nag mais daal des na des na na ko autorité daal jàppale jàppale bi daal. war na mën a gën a ëpp nii waaw ndax xam nga benn doom rek coono la rawatina nga yor ñaar waaw bëgg leen a dundal seen ordinance seeni couches vraiment jàppale bi daal moom jaadu na te yeyoo na ko tamit. autorité Pikine yi monsieur maire bi fi nekkoon te jóge fi ñu koy wax Malick Anne mos naa ko fa yóbbu mu am lu mu ko joxoon waaw am na tamit yoo xam ne su ma ko déggaan dama naan ko demal bërëb sàmbam demal bërëb sàmbam bu demee lu mu fa am. ñëw ba ci man tamit gore lool ni ma lii ak lii ma ne ko yaa ko moom dama la fa woon rek pour ñu jàppale la ndax man mii war naa laa mën a jàppale keneen nit war na laa mën a jàppale su ma gisee tam foo xam ne war nga faa mën a am dimbal dama la koy wax nga dem loo fa am la nga xam ne sa wërsëg la waaw mais na ko autorité yi jàppale. yii nag sama mag la doon yaay Cheikh waaw wax dëgg nit ku gore la ku baax la parce que moom jàpp na Cheikh am mi toppatoo na leen moom lu mu am lu nekk Cheikh yi moo ko gënal parfois dama koy tooñ sax naan ko yow Cheikh yi dañ leen a day dem. gàddu soo mbi toog benn place ndax yàlla dogale ko ñaar ñu mu taseeg ñu baax ñi ñu jàppale ko te yàlla rek tax may jox ko dara bu ñëwee ci la leen toggal la leen defar lépp wax dëgg seex yi lekk bu suur waa man moom ma fi nekkee xale yi parfois dañu maa yab sax parce que dañu may fondoo parfois ndax ñoo leen di def parce que moom day jékki-jékki mu feebar te du am ku ko jàppale xam nga kenn nit ci benn néeg moom dafa xaw doy waar il mu am ku koy jege di ko dalal parce que lii dafa metti yéen bu metti la waaw wax dëgg fa yàlla man loolu moom wax dëgg la waaw moom mooy sama taawu yaay wax waaye wax dëgg dañoo boot ñun ñëpp ñun ay rakkam waaw wax dëgg ku ko mën a jàppale nga jàppale ko te yàlla rek tax sonn moom wax dëgg sonn na tamit yor ay xale di leen dundal ñetti doom la woon ñoo ñëpp moo leen yoroon ba yàlla jël kenn ki waaw kon nag mu des ñaar ñi képp ko mën a jàppale ci lu ñu lekk ak lu tax ñu mën a dox mën a wax mën a dem boo xam ne kiiwam daal parce que avenir am yëpp parce que da koo kiiwal daal da koo andi problème parce que xale yi handicapé wuñu moom moo handicapé parce que moom xale yi mënoon a dem moom day lijjanti boppam mais instant bi mën la dem fenn bàyyi leen buy dem fenn parfois ma fi nekkul du dem man maay toog di ko jàppale di ko xoolal xale yi parce que xale yi wóorul parfois dañuy jéem a raam dem si lu tàng te mën na leen a yàq gën a gën a andi problème waa moom talul dara dara talu ko talul dem xew talul dem fenn xale yi rek la tal léegi daal jàpp nañ ko jàppale te yàlla tax rek parce que ñu baax ñaa ngi fi tamit de dañuy jàppale nit te yàlla tax waa ñu ngi ci sàkku ci ñoom ndimbal ñu jàppale ko gore na nag jooyul kenn demul fenn tamit dafa toog ci mbedd mi rek waaye yàlla ju ko gis yërëm ko jàppale ko te yàlla tax